asalaamaaleykum mbokk yeeg xarit yi ñuy safoo si 313 digital le site qui vous donne des informations fiables et nettes ñu ngi leen di nuyuwaat bu baax a baax di leen wax dal leen a jàmm ci lu gën a fës ci wàllu euh, people dañ koy daal di door rek li nga xam ne moo xew foofu noonu ca cimetière cimetière bu nekk tefes bu Mbour moom nag lañ daal di euh, nemmeeku ab dam daal di maanaam ab soxna daal di fay dugg daal di yor li nga xam ne moom mooy ab bouteille d'essence daal di euh, dem ci ab néew. ñëw daal di koy sulli eh, ki mu sulli nag benn ab benn xale la bu am eh, at atum nag daal di toll ci eh, deux ans et demi ba ko daal di sulliwee nag daal di jël loxo bi daal di koy dagg ba mu ko daggee nag li nga xam ne moo daal di des ci yaram bi ci la jëlee essence bi dem ba koy taal waaye nag am benn tailleur bi nga xam ne moo ko daal di gis tailleur bi nag euh, mi ngi wuyoo turu euh, Baye Fall moom moo ko daal di gis daal di woo euh, ñi nga xam ne ñoom ñoo yor sécurité plage bi ñoom nag ba ñu ñëwee ci la dame bi daal di arrêté waaye nag police lañ daal di woo ngir mu ñëw arrêté ki nga xam ne moo bëggoon na jëf jëf ju ñaaw jooju noonu uh, daal di dagg uh, loxo xale bu góor bi loolu nag nekk loo xam ne uh, lu doy waar la waaye jamono ji ki nga xam ne moom mooy xale bu jigéen bi yóbbu nañ ko foofu noonu uh, ca uh, police ba waaye tamit daal dinañ koy mettre en garde à vue foofu noonu ca police bu mbuur mu nekk loo xam ne lu doy tey nag mbuur uh, boobile xibaar la ñu daal di yeewoo mu nekk loo xam ne jàppoon nañ ne duñ ko gis fi suñu réew Sénégal mais nag gis nañ ko mu nekk loo xam ne ab daam daal di dugg ci bile cimetière bu tefes bu mbuur daal di sulli ab néew dagg loxo bi ñu ne diita waay mu daal jël li nga xam ne moom mooy koor bi jël essence bi nar dem ba ciy sotte pour euh, taal ko ci lañ ko daal di gis loolu moo waral yeggaliwul li nga xam ne euh, moom la euh, commencé nekk na loo xam ne dañ koy ñaawluwaat bu baax a baax waaye tamit euh, bu ñu euh, jugee foofu noonu euh, gis nañ ni ki vendredi passé ki nga xam ne moom mooy maître El Hadj dafa amoon ay propos yoo xam ne daal na koy tenir foofu noonu ca émission jàkkarloo ba demoon na sax ba amoon benn altercation ci diggante ak Bouba Ndour moom nag ki nga xam ne moom mooy maître El Hadj nekk ab avocat moom ginnaaw bañ ko laajee ci wàllu accident yi nga xam ne moo am fii suñu réew Sénégal te ñëpp daal di ci jaaxle moom lim ci xamle mooy que euh, responsable bi daal du ñenn ñu dul euh, client yi ba ca batalo Joola Euh, ñi nga xam ne euh, ñoom ñoo ci euh, gaañu ñoom ñoo waral li ni maanaam moom responsabilité lépp daal dina koy jël teg ko ci kaw ñi nga xam ne ñoom ñooy clients yi loolu nag itamit propos yooyu mu mu moo waral association des familles de victime di Joola ñoom nag ñoo daal di nar a porter plainte ki nga xam ne moom mooy Maître El Hadji Diouf ci propos yi nga xam ne daal dina koy tenir foofu noonu ca émission ba di jàkkaarloo waaye nag buñ jógee foofu gis nañ ab vidéo euh, di circuler euh, ki nga xam ne moom mooy euh, Serigne Lamine Sall nekk nekk Serigne ci ki nga xam ne moom mooy Mor Talla gën koo xam ci nit dof moom nag sëriñam boobu noonu di Serigne Lamine daal di nay def ab vidéo di ñaan njëkk ci président Macky Sall ngir mu bàyyi ki nga xam ne moom mooy Sall Sall mi ngi wax ne euh, ginnaaw bu ñu bàyyee ki nga xam ne moom mooy nit dof dootul euh, waxatik kenn euh, dara waaye tamit Serigne euh, Lamine euh, Sall moomu noonu daal dinay xam ne li nga xam ne nit dof daal dina koy def maanaam saaga yeeg yëpp moom xam ne ne nit dof moo ko def waaye nag bés buñ ko bàyyee mu ñibbi këram moom gëm na ne nit dof dootul defati li ni mel te lépp loo xam ne mën na ko ci wala mën na ko cee wax dina ko ci def mais lenn rek lay ñaan mooy ki nga xam ne moom mooy président euh, ngir mu euh, baal ki nga xam ne moom mooy nit dof ci lépp loo xam ne rek euh, def na ko vidéo bi nag jamono ji mi ngi ci réseaux sociaux yi gars yi di ko partagante fu nekk mais nag nañ ci mën a jàpp daal mooy que ñaan njekk daal am na ci diggante nit dof ak ki nga xam ne mooy njiitu réew mi président Macky Sall rawatina nag ñi nga xam ne ñoo yor ñoo yor wàllu yoon fii ni ci réew Sénégal fii la ñuy daal di suñu ay kàddu di leen joxaat dig daje ni ki ëllëg ak ci yeneen i information waaye naka bu leen fàtte di abonne si 313 digital